di ko ñaan nak mboolem ko xamanteni rek l'islam mo tax a waye nak eh, tay ñu ñëwaat ak yeen ci émission bi nga xamanteni ci la leen fassiyene yéene bégal mooy ngontum xasida yéen nag yéenay seet jànkat bu leen neex ak ku mën di doon ci waxtu wu leen sok ñu may leen ko dal leen ci bégal tay nak ñu and ak kenn ko xamanteni mën na la wax ne jànkatu khassida la bo xamne dafa régler bopam régler doxinam régler xolinam muy Serigne Saliou Gueye khassida man nga wax ne tamit Serigne sariou Gueye bisri ci njangamu neex njangamu doy war kon ñu andok yeen ci Serigne sariou Gueye animation bi ak ngont mi Serigne sariou kon adja mal bira wa saxsaxal fatana wa zikruhul hakim qad atana wa hablu li alana حلب الذي حسدني فلا نام له ختابي ورم مشانا وزان لي عند العدا ما شانا لك أوجه هنا إعسانا فاخ البدائع الفتى حسانا لك هروبي بحروف حانا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تسل رحمانا وقلت لي تقديما jërëjëf Serigne Saliou Gueye ci njàng mu sell mi njàng mu doy waar njàng mu pëseefu nee naa la fi nga koy amee fii studio bi nga xam mooy njaay Pro ñu gën koo xam ci Xaadim Ndiaye kon mbok yi yeen nag yéenay xool jànkat bu leen neex ñu may leen ko kon tey ñoo taxaw ñu tànnal leen jànkat boo xam ne mooy Serigne Saliou Guèye mën a jàng lool te baat bi neex macha allah yàlla njàng bi gën a wér sama cameraman bu ñawul bii Ndiaye Poro fii la yëf yi tàngee ma ji profité waal di ko may sama xarit boobu nga xam ne moo di Serigne Ousmane li nekk foofee ca diwaanu dubai di ko may sama xarit boo xam ne ku bëgg Serigne Saliou Guèye xasida la muy Serigne Omar Sarr waaye noonu laa koy mayeet waa groupe dalal xel bu Serigne Saliou waaye tamit nag di ko may sama soppe yi nga xam ne ñoo di diaspora bi nga xam ne xasida yi rek la ñuy safoo askuruhum walam yasal dayaana shukra alladina shahadu iyaana naajituhu wa bilmuna fajaana وبالنبي أنستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وهب لي القرآن شكري إلهي عليه آنا نبع شكوكي خاد لي تبيانا وزاد لي اليقين والبيانا أمنني وهب لي الإسكانا وطيب الفؤاد والمكانا له ختابي ومها العزيانا كما كفاني من حوى طغيانا قلبت لي يا مالك الاعيان يا من مع الخطا والنسيان وجهت لي ما خاد لي برحا نينا لا غونت مي بايو جانك دو خسيدا فو مانا فيك فك لا فيك جوخلا سونو لوخو فاسيني اندا يو وانا لا نجاي برو Euh, amul nag benn jànkatu xasida ñëpp lañ yemale si ñi nga xam ne ñoo yëkkati euh, turu turu baatu laa ilaaha illallaa mooy sikkurullaahi ak njàngum xasida fépp foo xamante nii rek soppee nga fa muy liggéey ci liggéey sëñ tubaab bi mooy bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati dañ la fekk fa seen ànd ak ki nga xamante ni mooy njaay poro fii rek lay xewee di taxamte ko kon danañ ànd ak yéen ci beneen gontu ak beneen temps beneen waxtu fii lañ koy defee nag ci émission bi nga xam ne nena la moy njay Pro ci émission yu doy war ak animation khassida kon jere ngeen jëf wa akhiru daxwaana an rabbil alamin jere jëf Serigne Touba jaarama Cheikh Ibrahima Fall jere ngeen jëf anta ladhi alanta man adana بمديم kitabu adana من كتاب دنا ليرت من ظلمني ظلانا والانتقمت منه يا مولانا مد مكوسي ساغيا جزلانا وللأمير قلد الخذلانا يا الله يا من لم يزل رحمانا يا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمدح من قد أهلك سجانا الحمد لله على اللحاء مذب إبليس بالأنجاب Bug publicity, une bug annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Kayndé Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325